ak Selbé Ndom ak ñeneen am na ñoo xam ne woppi coronavirus ji moo rey seeni waajur wala sax seeni mbokk ñooñu nag mujjee taxaw ne nag du woppi coronavirus loole nag mujj di jur coow lu rëy rëy li nga xam ne nag moo jëm ci dund gi nga xamante ni tamit ñoo ngi koy séddale ngir nag Covid bi gis ngeen coow li nga xam ne moo si juddu am Mansour fay indi Mansour fay ak marché yi nga xamante ni ñenn ñi dañoo njort ne ay njuuj njaaj ak giraawaal yi daf caa daal di am ñu ne déeta waaye comité de bi nga xamante ni coow la tamit daan nay wëy ak mbirum per jëm Habib Sy mujj tekki ndombal tànkam journal bi nee na mbirum Covid ci réewum Sénégal polémique bi daan nay bëri ndax gis ngeen di jëraawul ak niwaakin bi nga xamante ni proposé woon na ko ak coow li nga xam ne juróon na ko ci réewum Sénégal yokk ci Covid organique bi nga xamante ni ay garab la yu jugee ca Madagascar coow li ci am ñëpp daat nañu koy xam docteur Moussa Thioro ak kàddu yi mu yëkkati woon wax ne nañu bàyyi virus bi mu daal di circuler la mu jur ñëpp xam nañu ko ak mi nga xam ne moo demoon ca diwaanu Ziguinchor wax ne bërëbu fajukaay amul nag ay loolee metti woon ñoom Abdoulaye Diouf saar ba ñu mujjee sax indi ay tontu ginnaaw loole nag tëj jumaa yi ak jàkk yeeg coow li nga xam ne jur na ko ca lew na yéen a kaay gii di réew mi quotidien ci xalim ak Assane Samb ne en tout cas li am ba des daal woppi coronavirus dugg na ci réew moo xamante ni daal mën nañoo polémique loola yéen a kaay gii di Dakar Times moom nag dafa mel ni polémique boobee daal def cee génn ñi nga xamante ni nag ñooy communauté chrétienne bi la mu xam ne nag nee na ñooñu daal wane nañ nag seenu ko yara ndax nag ñoom matukaay yëpp jël nañu ko nag kenn déggu yóbbu leen ci ginnaaw bi ñenn ci askan wi tegee pression ñi nga xamante ni ñooy état bu Sénégal ba ñu deltu ginnaaw teewul ñi nga xamante ni ñooy chrétiens yi ñoom nag fa nga xam ne fa la ñu nekkoon daal fa la ñu nekk ba tey journal bi nag daa di wax ne am réew moom mënuñu ko tabax benn yoon si ka ak di ak pëccëxoo ak yar ak i teggin rek moo mën a daa di tabax réew loole waa Dakar Times ñoo si xëy tey yéen a kaay gi du l'Observateur ne Macky Sall bu ñu waxantee dëgg jël na ay décision yoo xamante ni tegu ko nag ci wàllum xam jëm ci wàllum santé wala wàllum science nag en tout cas bu ñu toogee nag ñaari semaine bu giraawaali amee ci réew mi bu mu bett kenn mbir mi nag am na ñu mu jaaxal sax ndax bi Macky Sall jëlee ay dogal docteur Bousso kenn dégg ko ci professeur Moussa Seydi kazalika Marie Xemes Ngom Ndiaye journal bi ne noppi googe nag am na ñu bëri ñoo xamante ni daal ñoo ngi si jeexi jaaxa yéen a kaay gii di réew mi quotidien ñu fekk fa nag docteur Yéri Camara bu Sames moom nag nee na àndul benn yoon ci dogal yi nga xamante ni Macky Sall jël na ko te ñoom sax dogal yooyu maanaam da leen daal di bett yéen a kaay gii di Sud Quotidien moom nag nee yi yi ñoo ngi alerté daan nañuy wax ne ubbi waat jumaa yi ak marché yi loole nag girawaali gu rëy ak musiba ma ba kumba mën na cee daal di am yéen kaay gii di a moom mu xëy di wax ne li nga xam ne nag moo am ba des mooy woppi coronavirus ji moom nag ma ngi wéy di dem njiitu réew mi di président Macky Sall daal di nag deltu ginnaaw te dogal yi mu jël sax na ñoo wax ne dafa daal di peer njaay wala dafa suufu kuréel gi nga xamante ni moom lañ tegoona ngir ñu xeex woppi coronavirus Macky Sall dafa jël ay dogal te tàgguwu leen sax mbir mi yéen kaay gii di enquête moom nag bëri ci réew mi ànduñu ci dogal yi nga xamante ni Macky daan na koy jëla yéen kaay réew mi quotidien Abdoulaye Diouf Sarr di fa fësal yeneen pexe yoo xamante daan na koy nas ngir xeex woppi coronavirus rawatina ci Dakar yéen kaay gii di la témoin nee na nag Abdoulaye Diouf Sarr jamono ji dafa rek bëgg a maîtriser mbir mi ci Dakar ndax gis nañ ne maanaam mbir mi daan na fiy bëri loola docteur Babacar Diop moom nag la mu xam ne nee na en tout cas kenn jiñ kenn la de résistance ñoom nag daan nañuy génn ci bi ndax nag ñoom nee nañu la nga xamante ni daal moom lañ fa gis dalul xel Babacar Justin Ndiaye moom nag nee na jàngoroy coronavirus ji ma ngay law di dem Macky Sall moom di deltu ginnaawa laas yéene kaay ñu fekk fa Mamadou Talla mi ñu dénk njàng mu digg doomu mi la mu xam ne nag moom ma ngi dalal xel yi ngir nag ñëpp daal di delluwaat ci l'école yi Vox Populi ñu fekk fa kuréel gii di collectif des gouvernements scolaires ñoom nag lànk kandaare la ñu def nee nañu du ñu dem ci école yi benn yoon du ñu nangu nag ñu leen di sacrifier maanaam di leen di daal di tayle yéene kaay gii de xamal ñu en tout cas li am ba des daal décision yi nga xam ne Macky jël na ko bëri na ñoo xamante ni nag ñoom ànduñu ci benn yoon réew mi quotidien en tout cas li am ba des lu toll si juróom-ñeent ci ay nit maanaam cas grave daan am am na sax benn artiste comédien boo xam ne maa ngi réanimation yéen a kaay gi du Sud Quotidien bàyyi nag mbirum woppi coronavirus wax ci meneen mbir mbir mi mu wax nag nee na ginnaaw chinois bi ñu tegee loxo sunu gerte gi jamono ji nak sunu jën yi chinois yi daan nañu koy teg loxo yéen a kaay gi du L'Observateur yóbbu ñu diwaanu Touba xale yi nga xamante ni rendi woon nañ leen fa ay weer yi nga xam ne moom la ñu daal di génn dig nag daat nay teg loxo waajuru xale yooyu ndax dañoo njort ne ne moo leen daal di rey ginnaaw ay prélèvement yoo xamante ni defoon nañ ko dugal ko ci ay laboratoire fii ci réew mi ak ca bitim réew ca France ca Bordeaux ci la nag dig daal di koy teg loxo ñu njort ne moo def googale giraawaal yi yéen kaay gii di sunu làmb nee na woppi coronavirus ji daan nay tax combat Modou Lo Ama Baldé kenn tuddatu ko combat boobee nag daan nay tàbbi géej su dee combat Siteu Papa Sow combat boobee moom dañu ko daal di dàqandi dàq boo xamante ni xamuñu kañ lañ koy jàpp